bismillahi irrahmani irrahim wasala allahu ala seyidina mohammadin ilfatixi ilxaatimi ilnasiri ilhadi wa ala alihi xaqa qadrihi wa miqdaarihi ilazim aha suñu ñaareelu dërs nee na yaqulu raji'a fi rabbin saami'i muhammadu bnu ljazariyi shafii mel na ni bayt bi lañ waroon a njëkk firi ci suñu bind bu njëkk dana yaquulu dana wax raaji afwi rabbin aji yaakaar mbahu borom boo xam ne saamici aji nangu ñaan la waaw sami allahu liman xamida dégg na ko ko sant nangul na ko ko rek afu mooy mbax maxfiratu mooy njëggal afu nag moo gën a foor wa tax allahuma innaka afuwun tuhibbul afu parce que maxfira mën naa am sa yëf yaa fi dañ ko muur rek waaye afu moom dindi nañ ko ba mu set amatul benn erreur waaw ko kan la Muhammad mooy turam moom mi yaakaar mbaxu borom bi nga xam ne mooy dégg tey nangul képp ku ko yaakaar binul jasari yi doomi waaja cosaano mbaa waaja dëkk ci jaziratu bni Umar waaw bu fa juddoo wutit way fa cosaanoo ay maamam fa lañu dëkk jaziratu bnu umar wala jaziratu bni umar ma nga ca turkiya kay aja askanoo ci wàllu fiq ci al imam muhammad bnu idris alshafii rahmatullahi alayh wa ala jamici ulamaai lislaami lan mooy maqulul qawli alhamdulillah loolu lañu firi woon mboolem xeeti canti way sax la ñeel yàlla wa sallallahu yal na yàlla dolli xéewal ala nabiyihi ci yonentam bi wa mustafaahu tey tànneefam num tudd muhammadin sayidna wa mawlana rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam wa alihi ak ñoñam ci wàllu ñaan képp ku ko gëm ci wàllu gu gën a xat nag képp ku bokk ci banu hashim ñi ne ak banu muttalib te gëm ko wa sahbiya ak saxaabaam ku dajeek moom te gëm ko te te dee ca wa quraani ak képp ku jàng bay jàngale al quraan ma muhibbihi ànd képp koo xam ne bëgg na kookee di jàngale alquran bëgg na sang boobee di yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam bëgg na alquran damir ji mën na dellu ci ñetti bërëb yooyu yëpp wa baadu wa baadu inna hadihi muqaddima wa baadu inna hadihi muqaddima fiima ala qaari'ihi an yaclama wa baadu gannaaw bu ma sante yàlla tabaraka wa taala julli ci yonantu alayhi salaatu wassalaamu ak waa këram wa baadu ak amma baadu baat la boo xam ne dañ koy jëfandikoo pour tuxu min uslubin liaaxara ñu ne dañ koy jëfandikoo pour dugg ci mawduul kalaam pour dugg ci sujet bi gannaaw bu yàlla julli ci yonentu sallallahu alayhi wa sallam ma subject bi ma bëgg ñu jàng mooy lan inna naka qasida ji naka bayti yile muqaddimatun ab laytaay la fii ma ca la nga xam ne ala qaari'ihi jàngal qur'aan an yaclama ak xamam maanaam ilmuhu waaw xasida ji daal eh, laytaay la joo xam ne soo ko góoreelee xereñee ko danga am baas bu dëgër ci ni ñoo jànge alquran ba xaraf wu daa ko tudd ni nga ko war a tuddee jox ko melo yamu wara am baat bu ne it daa ko jàng ni nga ko war a jànge danga am base bu dëgër ci xam-xamu tajwid ba dootoo yàq ci njàng mi ngay jàng alquran waaye dana la dimbale itam ba nga mën a am accès ci alkutub almutawalaat téere yu yuñ guddal yi yu mag yi waaw ci wàllu xam-xam-xamu tajwid boo gorelee bayt yi da goreel da nga wa baadu inna hadihi muqaddima muqaddima mooy laytaale mooy laytaay li ngay jiital soog a teg la nga war a teg waaw xam nga armée ña ña nekk ca kanam ñoom la ñoo tuddee muqaddima muqaddimatul jeysh am na ñu ko ñu koy fatxa nag daal gi muqaddama ni ki muqaddamatul waaw muqaddamatu raxl waaw wa baadu gannaaw wuñ sante yàlla julli ci yonantu sallallahu alayhi wa sallam inna hadihi naka qasida ji muqaddimatun laytaay la fii ma ca la nga xam ne ala qaari'ihi war na aji jàng alquran rawatina ki ko war a jàngale an yaclamahu ak xamam id id waajibun calayhimu muxattamu qabla alshuruuci awalan an yaclamu maxaarija alxuruufi walsifaati liyalfiduu bi afsaxi llugati id ngir waajibun aji war la calayhim ci ñoom muxattamun lu ñu waral la mu feddali war gi rek qabla shuruuci njëkk soobu ci jàng alxuraan awalan ci njëlbeen aji war la an yaclamu seenuk xam maxaarij alxuruufi génn waayu xaraf yi wasifaat yi ak melow xaraf yi li yalfidu ngir ñu mën a tudd bi afsaxi lugaati gën jaa fasaax gën jaa fasaaxa ci luga te mooy lugatul arab képp kuy jàng alxuraan war na ci moom mu goreel ñaari maxaarijul xuruuf wa sifaatul xuruuf maxaarijul xuruuf bërëb yi nga xam ne ñooy génnuwaayu xaraf wu nekk xaraf woo gis rekk gannaaw ba mu amee nu mu tudd am na fu mu dëkk ci diggante put ak làmmiñ ak tuñ ak jawf waaw am na it numu mel waaw ni nga xamee ne nit dafa ñuul mbaa mu xees dafa gàtt mbaa mu njool xaraf wu ne am na ay melo moo xam melow shiddatu la am na alaf araf yu tët wala raxaawatu la am na xaraf yoo xam ne tatuñu yooyu yëpp koy jàngal alxuraan war na ko xam war na leen xam waaw muxarriri tajwidi walmawaaqifi wa ma alladi rusima fi lmasaxifi min kulli maqtuucin wa mawsuulin biha wa taa'i untha wa taa'i unthan lam takun tuktab biha muxarriri tajwidi xaala xaala kawnihi aw xaala kawnihim mu muharriri tajwidi mbir moom ñu nekk di woy xereñee tajwid wal mawaqifi ak barabu taxaw yi ànd ak barabi tàmbali it wa man ak la nga xam ne rusima bindeef na ko fil masaaxifi ci al masaaxif al uthmaniya ci kaamil min kulli maqtuuin ca laale moom lépp luñu ñu dagg la wa mawsulin ak luñu ñu bi bihaa ci moom waaw mbindi mbindinu kaamil bi des ko war a goreel ba nga xam ne baat yi nga xam ne buñ leen di bind am na ci barab dañ leen di takkale am ci barab ñu jokkale leen lu mel ni inna maa léeg-léeg def inna maa léeg-léeg def inna maa nuun gi taqale koog miim gi waaw léeg mu jokkoo wataayu unthan ak taawu njigéen yoo xam ne lam takun nekkut tuktab ñu koy bindee bihaa ci taa marbuta muy haa ndax am na taawu untha yoo xam ne taa mabsuuta taa mabsuuta lañ leen di bindee am yoo xam ne taa marbuta lañ leen di bindee la muy jëriñ mooy boo taxaw ndax bu fekkee taa marbuta lañ ko bindee ni ki raxmatu mu jeexee ci taa marbuta booy taxaw danga naan raxma su fekkee nag taaguñ ubbi lañ ko bindee muy taa mabsuuta booy taxaw danga naan raxmat waaw bayti yi daal mel na ni defal nañu xarita defal nañu fehreset li ñu war a jàng ci téere bi waaw li ñuy njëkk jàng ci téere bi mooy maxaarijul xuruf alhijaiya wa sifaat xaraf wu fan la war a génne ak sifaat yi nga xam ne ñoo ñeel xaraf wa ngir xam maxaarij ak sifaat mooy tax nga mën a jàng alquran ni ko mën a jànge ndax ci luxal arab luxat luxat luxal arabiya lañ ko wàcce lépp luy tax nga mën a tudd lugal arabiya na mu gëna mëte mëtee dafay dafay nekk farata ngir nga mën a jàngal Alxuraan na mu gën a mëtee waaw waaw waaw waaw kon maxaarijul xuruuf ak sifaatul xuruuf mooy mawduu bu njëkk ci téere bi ñaareel bi mooy taxriiru tajwid waaw xereñe xam-xamu tajwid waaw xam axkaamu tafxiim ak tarqiq ak atey nuun assakina ak tanwin al mim assakina xam axkaamul mudud ñetteelu temu téere bi gannaaw bu ñu xamee maxaarijul xuruuf ak sifaat gannaaw bu ñu xamee e, tajwid ñu xam tamit al e, al mawaqif mawaqif rek la tudd waaye mi ngi mi ngi bëgg wax maxaalul waqfi wa maxaalul ibtidaay way wee ko attunut barab yi nga war taxaw barab yi nga mën taxaw ak barab yi nga mënta taxaw barab yi nga mën a tàmbale ak yi nga mënta tàmbale ñeenteelu tem bi ci téere bi mooy ilmu rësm ilmu rësm ilmu rësm baat bu ne nga xam nan lañ ko bindee ci kaamil bi ndax kaamil bi dafa am mbind mu spécial du baat bu ne rek ni nga ko déggee ci luxal arabiya nan nga ko mën bindee soo dee bind alquran waaw waaw mu mel ni nag ñaar yim ci indi file mooy almaqtuu wal mawsul ak taau tanis almaqtuu wal mawsul ñu misaal ko ci innama taau tanis ñu misaal ko ci raxmatu waaw inna raxmatallahi taa boobu taa ma bu suuta la تعمى بالسلطنة تعمى بالسلطنة waaw boo cay taxaw doo taxaw ci doo wax raxma danga naan raxmat donte foofu du taxawukaay waaye nit mën na caa taxaw ngir reculer continuer reculer continuer mm-hmm. Mm-hmm. naka noonu danañu jàngal axkaam al waqf wal ibtidaa axkaamul waqf wal ibtidaa waaw fi ñu war a taxawee ak fi ñu war a tàmbalee hada wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa ala alihi xaqa qadrihi wa miqdaarihi